tey jii nii c'est parce que Union européenne dafa teg ses genoux sur notre cou que la jeunesse de ce pays prend la route du désert que la jeunesse de ce pays prend la route de l'océan Atlantique tey jii nii c'est parce que les entreprises françaises les entreprises turques les entreprises impérialistes dañoo teg seen genou ci baatu Sénégal ci baatu Afrique que le peuple africain que le peuple sénégalais di jël euh, la route de l'océan Atlantique ou de la mer Méditerranée mbokk yi mbir mi jafewul de dama ne askanu Sénégal bii jël gaal yi dafay topp jën yi nga xam ne moom la ñu manque fii te muy dem Union européenne askan wi nga xam ne mooy jël gaal gi dafay topp les flux inanci les flux financier illicites yi nga xam ne ñooy jóge fii Afrique jóge Sénégal di dem dans les comptes en banque suisse askan yi nga xam ne ñooy jël gaal yi dañuy topp l'argent volé par les politiciens de ce pays et de ce continent et qui loge dans les banques suisses dans les banques françaises dans les banques états-uniennes askan bi nga xam ne mu ngi jël gaal gi dafay topp en fait wurus bi nga xam ne mu ngi ci Sénégal ñu ne téeméer boo jël juróom-ñeent fukk mu ngi dem bitim réew dafay topp zircon bi nga xam ne ñu ngi koy jëlee fii Sénégal téeméer boo jël 90 pour cent yi di dem bitim réew askan bii di jël gaal gi day jël gaal gi pour topp bénéfice yi nga xam ne entreprise yi ak parfois des patrons sénégalais ñu koy def ci ndodd askanu Sénégal ñu koy def ci ndodd liggéeykatu Sénégal bénéfice yooyu la ñuy topp parce que ces bénéfices là sont logés dans des comptes banque en Italie en Espagne ak feneen et donc yu waa ji doon wax bu fekkee da ngaa bëgg a jàmm da ngay xeex les causes de la guerre bu fekkee da ngaa bëgg xeex immigration irrégulière da ngay xeex pas les mais les causes de l'immigration irrégulière te immigration irrégulière ñun ñëpp xam nañ ne nooteel bi nga xam ne ñu ñu koy noot ñun Sénégal ñun Afrique waaye itam politiciens sénégalais yi nga xam ne dañuy jël seen genou di ko teg ci loosu askanu Sénégal nooteel googu moo tas yaakaaru askanu Sénégal nootel googu moo tas yaakaaru ndawu Sénégal moo tas yaakaaru béykatu Sénégal moo tas yaakaaru liggéeykatu Sénégal et donc si on veut lutter contre l'immigration irrégulière il faut nécessairement traiter le mal par la racine diine musulman yi ak ñenn ci suñu kilifa aada yi ndaxte ñun taalibe gis nañ yenn saa yi nu ñuy doxalee ak ñun taalibe bu gën a duuf enveloppe moom la ñuy fulal talibé boo xam ne amul tous kenn du la fay dal ça également c'est des pressions psychologiques yu ñuy def ci kaw askanu Sénégal et donc faut pas s'étonner à ce que les gens veuillent aller en Italie en Espagne nous sommes complices nous sommes tous responsables il faut qu'on ait l'honnêteté de le dire je le répète la plus grande part de responsabilité c'est l'État waaye ñun itam nañu xoolaat suñu bopp nañu xoolaat suñu bopp fi may daanelee mooy ah waa jii de daan na wax te d'accord naa ci dis-moi quel dirigeant tu as je te dirai quel peuple tu auras dama ne dirigeant yoo xam ne dañuy dem juddoo bitim réew dañuy ut ay nationalité bitim réew dañuy dem wasin bitim réew dañuy dem faju bitim réew dañuy dem vacances bitim réew dañuy dem jàngi bitim réew dee rek la ñuy def Sénégal mais quel message vous dites quel message vous donné à la jeunesse de ce pays-là quel message vous donné au peuple sénégalais, au peuple africain. Donc oui, vous êtes les premiers responsables jërë ngeen jëf c'est la responsabilité de nos autorités ndaxte li ma wax noonu yëpp ñoom ñoo ko def waaye mbokk yi mbokk yi nañu interpeller itam suñuy famille yàkkamti nañ loolu am le dernier iPhone yàkkamti nañ loolu am le dernier cheveu naturels yàkkamti nañ loolu am le dernier tissu ñuy def pression sur les membres de nos familles dans nos familles lan moo fa am ku fa am xaalis moom la ñuy jox gëdd boo amul xëy boo amul gontu kenn du la faale ci sa biir kër ci sa biir njaboot ça également c'est de la pression voilà comment on assassine socialement le peuple sénégalais avant de l'assassiner physiquement dans la mer Méditerranée dans l'océan Atlantique et dans le désert du Sahara donc ñun itam foog ñu xoolaat suñu jikko luy iPhone luy dernier iPhone luy iPod luy dernier tissu luy dernier cheveux naturel ñu wax itam ak ñenn ci suñu kilifa diine chrétien yi